auditeur auditrice 90 la référence Alpha FM ñu leen di jaajëfal di leen jégaluwaat benen yoon ci euh, tewlu bi ngeen di tewlu suñu programme si suba ba léegi ñu and ak euh, ki nga mom lañu wax l'exécutif régional bu diwaanu Kaolack ñukoy wax euh, le gouverneur de la région de Kaolack Alioune Badre Meng jëm ci ab déclaration bo xam nam na amal jëmale ko ci askan wi askanu Kaolack kon ñep nañ ko monsieur le gouverneur tay ñu ngi ci li nga moo jëm ci wàccaayu tabaski bi ak li nga xam ne moo jëm ci réew mi àdduna bi lay wax sax lan lañ ci mën a jàpp comme déclaration soxal euh, kaolak voilà jërëjëf merci beaucoup euh, alfayda euh, damay commencer rek ci jégalu askan wi yëpp balu leen àq baal naa ñëpp àq yal yàlla boole baal may ñu ñu fekkee déwén te déwén dàqal ñu ren bu loolu weesoo nag Euh, aussi maa ngi nuyu kilifa diine yëpp kilifa aada yi ñoom itam di leen ziara di leen balo ak di leen masow ci coono yëpp. déclaration bi nag lii rek la ñu ngi jëm ci feet feet bu nga xam ne ni mooy tabaski. feet googu nag euh, dafa bari ay xumb xumb yu ci nit ñi di def yu si bari aada la rek yuñ ciy def yemuñ rek ci ut xar nañu ko lislaam santaane def euh, sunna si mais dafa am yeneen ñu ciy def yu nga xam ne nii jamono ji bu bii ñu nekk dafa méngoowul ak moom fi mu jëm xam nga ko mooy jàngoro ji nga xam ne ni coronavirus yaakaaroon nañ sax wàññeeku na fi bu baax mais fan yi dafa jogaat am na benn variant bu ñu wax delta dafa ñëwaat ak doole dal ci suñu réew mu nekk nag euh, virus bu nga xam ne ni muy wàllaatee dafa gaaw te dafa bëri doole kilifa yi ci kaw génne nañ ay communique génne nañ ay circulaire pour que ñi ñi dellusiwaat ci takk masque pour ñi ñi dellusiwaat ci di dandante les mesures barrières pour ñi ñu dellu siwaat ci di raxas seeni loxo ak gel yi wala saabu ordinaire éviter nag dem beeg dikk bi le maximum possible ñu éviter ko def déplacement essentiel déplacement bu nga xam ne mënul ñàkk ñu def ko te yem ca loolu dama koy waxaat fii mu nekk ndigal lu jóge ci kaw te kenn waruñu ci njëkk nañu takkaat masque yi nañu daan dantewaat nañuy faral di raxasu ak saabu wala ñuy laal gel éviter dem beeg dikk bi ci lu nga xam ne ni du farata bu ñu ko defee yàlla mën ñu musal comme ni ñu musalee woon ba à un moment donné région bi muccoon na toog nañ lu mat un mois presque et demi amuñ benn kaa bi ñu amee cas aussi ñu géré ko deuxième vague bi mu ñëwee aussi ak dooleem ah laal nañu nag waaye résisté nañ lii nga xam ne nii ñu ngi koy tuddee troisième vague ñëwaat na gën a ëpp doole deuxième vague bi moo tax ma ne nañ moytu nañ moytu bu baax a baax a baax a baax baax am na nag yu ñuy waaj a def yu may dégg ay ay show kii ay soire kii ay de grand rassemblement loolu joxe naa ndigal préfet yi ñu tere ko ñu tere ko du ñu nangu nag ñu jóge fee ca àll ba fu nekk ñu jógee fa ñu indil ñu fii suñ Kaolack musiba boo xam ne nii après tabaski gi bu weesoo ñu xam fu ñu koy waxee ji ñun danañ jël suñu responsabilité ba loolu duñ ko nangu donc ku doon wàcc xumb xumb yi aussi bu yeboo nga xam ne xumb xumb yooyu dinañ ko tere na nit ñi def li war a def ñu ñu ko sunna demandé ñu def ko yem ca rassemblement yi ci ama euh, culturel yeeg euh, yooyu yëpp joxe naa ndigal noonu ko préfet dakkal parce nak buñ ko dakkalul aussi ah neex ni de mais nak après na fekk nga mën ko netali soirée ba nangam nangam nangam bu soirée ba jeexee boo moytu hôpitalal ti fekk ak lenen ak lenen loolu ñun ñi ñun ñi nga xamni ñoy responsabilité bi fi duñu ko nangu joxé na ndigal préfet yi té bu soobee yalla dañ ko doxal niñ ko wara doxal ñu moytu ben la nañ ci def luñ ci l'islam santaane yem fa nit nag dafa war a niru jamonom jamono jii ñu toll nii laajut loolu dañ ko comprendre noonu yem ci li ñu l'islam demandé ñu yem ca ku nekk mucc buñ ko deful danañ ci jëlee lu neex te nag eh, virus bii bu bees bii bayul kenn de ko yaakaar ne xale nga wala yaa ngi sa digg dooleeg nangam nangam mën nga def la ne yaa ngi nax sa bopp hmm. virus bi ci ñëpp la bon loolu nañ ko xam euh, loolu daal laa bëggoon wax euh, di leen nuyu di leen sant. waaw monsieur le gouverneur su lu jëm ci euh, julli yeeg kii yu diine yéeg daje yeeg yooyu moom. non loolu ñu ko war a def dinañ jël seen i matuwaay loolu kilifa diine yi nga war a def dinañ jël seeni matuwaay si seen ak seen gi dandante buñ paree tasaaroo mais nag soirée ñëpp daje fa. di fecc ak def yu kenn xamul pendant une durée déterminée plus ñu fay yàgg plus risques yi di gën a du benn. dem beeg dëkk bi tamit Kaolack bëri na fan yi embouteillage yi euh, Carrefour bi yooyu tamit nañ moytu ko ministre ministre ministre transport génne na ci génne na ci circulaire génne na ci nu nu oto yi war a def oto yi duñ leen nettoyer di leen désinfecter ñii di laal jet yooyu circulaire ministre bi lire nañ ko ci télé ku ci nekk lañ wax xam nga ko. nañu ci dimbali ay contrôle nag danañ ko def. contrôle danañ ko def dana métti nag. dana métti mais seen jàmm rek lañ bëgg. seen jàmm rek lañ bëgg ñun ku ñu ci mere ku ñu ci merewul lañ yemale. parce que suñ liggéey la ñuy def. wasalaam. suñu gouverneur ñu lay jaajëfal bu baax a baax. merci beaucoup C'était le gouverneur Alun Badra, Meng, gouverneur de la région de Kaolack mu doon situation Réumi, Tolwaï, tolluwaayu à ak Kaolack à bi ci a am muy ñaax askan wi mesures barrières comme nous qu'il kilifa euh, sako troisième vague la wax te gis nañ ne ndaw yi fourchette 15 44 ans da leen di bu a davantage respecter mesures barrières yi ñàkku waaye tamit tere yi nga xam ne aaye nañ ko ñu l'exécutif régional bu diwanu Kaolack di aline Badara Meng ñu leen di jaajëfal way leen di ànd ak suñuy programme 90.1 la la référence la